mbokku internet groupe média du sud ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di leen eh, dalal jàmm ci jotaay bi nga xamante ni ñu ngi koy waaj a sekk kenn ki nga xamante ni am na bopp gii di coronavirus fii ci eh, Ziguinchor eh, boobu la jotaay nag jotaay sensibilisation la waaye nag jotaay information la ci kenn ki nga xamante ni dund na li nga xamante ni lëmbee na àdduna muy coronavirus waxtaan bi dañ koy sekk ak moom li ngeen ci jëlee jàpp leen xam-xam la ci yéen. ci euh, xeex bi nga xamante ni ñëpp a ngi ciy dugal seen loxo bu ko defee ñu mën baral xeex bi bismillah. voilà Malam Badji bokk nga si ñi nga xamante ni euh, malheureusement euh, feebar bi laal na leen waaye alhamdulilah génn nga ci alhamdulilah mën nga ñu expliquer kañ nga am ak noo amee li nga xamante ni mooy feebar gi. bon jàpp ma date exacte bu ñu kii bu ñu yóbbee mm. mais c'est un jour de de vendredi. Mm. je vendredi ñom dañu ñëwone euh, un jour de mercredi fii ñu def test euh, sama grand frère bi sama grand frère bi buñ ko défé test le le lendemain jeudi guddi vers euh, minuit lañu ñu sama grand frère ñu né ko ñoo ñëw pour récupérer ko mhm. buñu ñëwé ñu né sama grand frère bi ak doomam bu ndaw bi dañoo positif mhm. ñu defar mhm. kër gi yëpp test bi buñu défé kër gi yëpp test bi ba vendredi vendredi vers 23h. Euh, mhm. lañ ñëw récupérer famille bi yëpp. Mhm. bu ñu récupérer famille ñu yóbbu ñu hôtel Tahiti. Mhm. bu ñu yóbbee hôtel Tahiti foofu la ñu foofu la ñu nekk euh, ba le lendemain. le lendemain vers euh, samedi bi. minuit la ñu ñëw ñu ne man ak ñetti ñetti élément suñ test yi dañoo positif. waaw boobu la ñuy yóbbu. hôpital régional bu Ziguinchor. justement ak euh, famille ngeen nekkaloon foofu noonu loolee euh, comment est-ce que famille bi noonu naka la ñu information bi nga xamante ne da ngeen positif comment est a été. ah dafa métti woon trop dafa métti woon stress euh, mun mhm. comme ku nekk xam na ni feebar yi lu muy def. Mhm. lu muy def si àdduna bi. Mhm. waaw dañoo stressé woon trop mais par la suite ah, dañoo xool ni. parce que ñun euh, ñun ñu fa nekkoon yëpp dañoo waxoon dañoo asi asymptomatique. Mhm. amul dañoo am feebar bi mais feebar bi kiiwul. développé wul ay signes wul amul ay signes yu ko yu ko monté. Mhm. waaw amul ay signes yooyu. Mhm. ok bu ñu leen fa jëlee ñu yóbbu leen fi nga xamante ne mooy centre de traitement euh, foofu nga xamante ne foofu la ñuy saytu ñi nga xamante ne am nañ wopp gi di Covid 19 si loolee euh, def nga séjour si centre boobee ñaata fan la ak naka la séjour bi demee woon foofu noonu justement. Euh, bon def nañu foofu plus de quatorze jours une plus de quatorze jours mun naa wax ni seize jours. Mhm. kii foofu non seulement lekk bi. lek bi bu mun wax ni da ngeen di lekk mais day mel ni ah bon lu waral ah man mii sax xam nga chaque fois mais amul rien n'est fait. lan ngeen doon lekk. Euh, parfois dañuy kii ceeb ceeb bi sax du am soos ñu teg yàpp plat yu yu nga xam ni plat plastique mhm. yi. yooyu euh, jox ak plastique jox waaw. Euh, lekk bi wax dëgg moom doxul foofu. Mhm. loolu moo métti surtout loolu moo gën a métti e parce que ñun sax mun naa wax onze heures la ñu ndekkee. Mhm. onze heures dix heures onze heures ay parfois midi. Mhm. ñu añee seize heures dix sept heures. reer bi parfois day dem ba vingt une heures vingt deux heures même voire vingt trois heures. waaw dafa méttoon trop parce que garab bu ñu doon naan kese moom. Euh, ku nekk xam na chloroquine. Mhm. boobu la ñu doon naan sans compter ak yeneen garab yi. Mhm. waaw c'est pour cela moom dafa méttoon trop. jamono yoon yéen ñaata yéen a fa nekkoon et comment est-ce que vous vivez en interne naka ngeen doon dundee en interne foofu. on était au nombre de onze. Mhm. onze. Euh, onze yi yëpp xam naa leen. sama ay frères ñoo fa nekk ak sama dëkk euh, dëkkandoor yi nii. ñoo fa nekkoon. mais gars yi du ñu sox du ñu bëgg sax. nga génn si biti dañ dañ lay da ngay toog si si lal bi ngay toog si lal bu ngay toog noonu mhm. toog tëdd nga fa am mhm. soo soo soo jóg gisee ma jóg nga xam ni dugg si duus wi mhm. su ma jógee duus wi delloo toog si lal bi tëdd doo génn waaw loolu lañ fa kii woon loolu lañ fa nekkoon parfois sax man moom pour dégg baat nga xam ni baat docteur yi laay dégg souvent suñu ñëwee boobu laay dégg seen baat Euh, dafa amoon beneen instant dañoo euh, pro dañu ma prometté télé dañu fay installé télé mais télé bi avant ñu koy ñu koy installé dafa yàggoon trop. Mhm. dafa yàggoon te sa kii ak moustique tamit a chaque fois da ngay réclamer ñu ne la après après ñu ngi ñëw ñu ngi ñëw ñu ngi ñëw. Mhm. parfois dañuy toog euh, dañoo dañoo toog ay quatre jours comme ça ñu indi ma kii indi sànq bi teg ko noonu. moustiquaire waaw moustiquaire ñu teg ko noonu bu ñu ko tegee noonu.

deux jours la fa fanaan ñu transféré ma ñu ne ma comme def naa premier test bi dafa négatif il faut ñu transféré ma parce que dañoo indoon ay éléments yu jógee Kolda mhm, bu ñu jógee Kolda mhm. ñu indi leen euh, ñu indi leen fii nii ñu indi leen fii ñu indi leen fii kii Ziguinchor waaw mhm. bu ñu leen indee Ziguinchor boobu lañ ma déplacé teg su beneen néeg néeg boobu mooy yóbbu sama sànq bi bu ma sànq bi bu ko yóbbee Euh, chaque fois su ma leen waxee pour ñu déplacer pour ñu takkal ma ko dañuy dañuy wax après ñuy ñëw sànq bi bu bu ñu euh, waxee noonu ñu ne ma dinañ ma ko bu ñu déplacé wul noonu dañ ko dañ dañ ko fu mu ko teg foofu laa ko teg bu ma génn chaque fois ma ne leen yooyu ñoo ngi may xaw a rey mm-hmm. yooyu ñoo ngi may xaw a rey mais chaque fois dañ ma ñoo ngi ñëw ñoo ngi ñëw du ma leen gis ma leen boo génn li ngay def nii dafa mel ay révélation la ci lii di euh, lu ñu xamuloon ci centre boobee ce qui revient à dire que maanaam bu ñu sukkandikoo ci sa kàddu centre bi anam doxul ni ngeen di dunde eh, jarulion yoon je pense. wax jarulion. Eh jaarul yoon. ah bon te doon man surtout nakari. Mhm. man euh, fu mansi man Sédhiou laa nekk. te bu ma doon génn euh, dañoo yëre bu mu jëlee bu mu indee fii pour fête. Mhm. yëre yooyu yëpp dañ ko dañ ko dañ ko récupérer ko récupérer. Mhm. dañ ko dañ ko dañoo wax ni dañ koy lakk te ñun suñu cosaan moom yëre yëre ku nga xam ni day dund. Mhm. duñ ko lakk mhm. duñ ko lakk lu expliqué naa leen ko ñu ne ma donc dañ koy dañuy dañ koy désinfecté ba pare ñu suul ko. Mhm. loolu lañ ma wax. mais ma ne leen man heure bi nii yoruma yëre foofu kër ga dañ ma àll yëre bi gisoo pantalon bi sax eggul si suuf. dañ ma àll yëre bi. bu ñu ma àll yëre bi chaque fois su ma leen wooyee ba léegi nii. après par la suite ñu demoon l'état jël loolu en charge. maanaam maanaam seen yére seen alal yi. maanaam seen yére ak ñoom seen jël nañ ñu ñu récupéré ko mais amul luñ ci luñ ci luñ ci yokk. non non man euh, yére yére docteur yi lañ ma jox yooyu laa sol génn. Hmm? moo ngi nii moo sama néeg sax ma ma bàyyi ba léegi nii tuuma ko yi sama rakk bi moom ma ko àll. te wax naa leen ñu liggéeyanteel ma peut-être su dee ñu ma jox ay yére. Hmm. ñu won ma na ñu jàppale mhm. mhm. mhm. ma ma am benn moyen pour accès dem Sédhiou récupérer sama yére yi mais ñu ne ma loolu c'est interdit comme l'état da kii dañoo bare yoon yi kenn du tukki duñ loolu mënuñu ko jël en charge loolu lañ ma wax li nga jógee expliqué nii ça prouve nettement réalité bi nga xamante ni ñoom lañ doon dund ci centre bi ñoo ko déggandoo eh, ci kàddu yi nga xamante ni témoin oculaire la ci li ñuy expliqué eh, dañuy ñëw un tout petit peu la nga ci sa gox Euh, population bi naka lañ la accueillir un tout petit peu. population yi dañoo ignorer carrément dañoo foog ni bon feebar bi mu ngi fii ba léegi. Mhm. parfois dañuy taxaw fële di ñu xool. Mhm. di di di daw. mais man parfois damay wax nii feebar bi su dee dañ koy dañ dañ koy séntu muy ñëw. Mhm. ñëpp dañuy daw bàyyi ko foofu. mais ñoom dañoo foog ni on dirait ñun ñoo ko dem récupérer sin indi ko fii. feebar bi wax dëgg am na. mais dañu war a xam ni solidarité kese moo mooñ si mën a génne mhm. mais suñuy dawee loolu mën na indi stress mën na indi nit ba mu mujjee jël mën naa wax ni suicidé mhm. te loolu baaxul mhm. waaw loolu laa gis fii nii souvent dañuy dañuy ignorer carrément hmm? dañuy ignorer dañuy ignorer parfois dañuy taxaw sori di ñu xool waaw c' est une réalité bi nga xamante ni moom mu ngi koy dund leneen li nga xamante bëgg naa nga àddu ci euh, malheureusement ñenn ñi nga xamante ni ñu ngi yoon ci centre de traitement boobee nekk ca hôpital régional bu Ziguinchor kenn si ñoom génn àddina euh, information boobu naka ngeen ko accueillir yéen mi nga xamante ni a ngi yoon ci si centre bi. dafa fekk ñun hmm. suñu suñu nijaay la. Hmm. suñu papa la kooku xam nañ ko ñun suñu bopp la ñun ñun benn village. Hmm. waaw ñun bokk benn village.

bon man comme euh, ministre bi lu mu waxee restez chez mhm. man euh, souvent foofu lay appuyer. Mhm. ak euh, nañu jàpp di raxas suñu loxo yi. Mhm. feebar bi am na feebar bi am na. ñun ñu fa nekk centre bi ñun ñu fa nekkoon yëpp. nous sommes asymptomatiques bon kenn sentiru douleur ba ñu génn nii. waaw c'est pour cela man tamit ma ne man feebar bi am na. mais tamit xam nga nit tamit soo soo amulee soo amulee symptôme da jàpp ni peut-être euh, maanaam maanaam boo bëggee wax lu maanaam ñeen ñi fa nekkoon kenn amul ay douleur ay métitu yaram ay ñoom seen waaw ah bon waaw man lu may wax damay wax nit ñi nañuy raxas seen loxo ñu toog seen kër loolu laay gën a appuyer ñu toog seen kër ñu bañ a joxe loxo comme feebar bi moom am ñu bañ a joxe loxo ñuy raxas seen loxo chaque su dee dañuy génn su dañuy génn ñëwee ñu jël ñu génne seen yére weer ko si naaj mhm. waaw foofu lay gën a appuyer. justement am na ñi nga xamante ne ñoo yor euh, mbirum situation boobee fii ci Ziguinchor euh, di euh, ay comité yi nga xamante ne ñooy jàppale nit ñi si organisation boobu ci riposte bi encore une fois mhm. tey ñooñee ban message nga leen di dénk ñi nga xamante ni ñu ngi si centre bi peut-être am nañu yéene jottali leen message boobu mënuñ ko def mais yow nekkoon nga ak ñoom foofu noonu ban message ngay xam nga xamante ni boo ko jottalee autorité yooyee dinañ jàppale ñu nekk si centre bi. man lenn kese laa leen am pour wax ñuy génn nañu jàppale ñu nga xam ni euh, dañoo dañoo nekkoon ci ci problème boobu par exemple ñu am feebar bi ba tane yu génn nañ leen jàppale parce que yow nga génn par exemple man fii sama frère yi ñaar yi yëpp ñoo ñaar nga xam ni ñoo dañoo doon liggéey ñoom ñëpp liggéeyuñu. Mhm. ñoom euh, ñun ñoo fa nekkoon si hôpital yi mhm. ñun ñoo fa nekkoon. bon nañu jàppale nañu jàppale ñu nga ni si hôpital yi lañ nekkoon ñu jël leen en charge nañ leen jël en charge parce que doo doo jàpp ni nit gi pendant seize jours plus ou bien plus moo te moom liggéeyam la yaakaar pour dundal fa jabootam nga nga bàyyi ko nga libéré ko nga bàyyi ko noonu nga jël yërëm nga taal ko nga bàyyi ko noonu mu dem dafa metti trop te aussi ñu jàppale ñu nga xam ne si hôpital bi ñu jox leen ñu bu baax ñu jël leen en charge ñu xam parfois même si s'il le faut xamoon nan laa koy mais ñu génne leen parfois ñu toog si ñu jël air. Mhm. waaw loolu baax na tamit. naaj bi tamit ñu kii bon parce que man bu ma fa nekkoon pour gis naaj wi sax problème la. da ngeen daan tëju rek. tëju kese la ñu doon dem tëju kese. Mhm. waaw. kenn si nga xamante ñoo yoroon ñoo leen doon saytu dénk nañu nii. Euh, def teg nañ leen si condition yu baax certes yéen li nga li nga jot a wax ni ay révélation yu bees la yi nga xamante ni ñu ngi koy door jot nee nañ ma am ngeen ay ay ay télé ay téléphone bu ko defee ngeen mën a dégganteeg ñi nga xamante ñoo nekk ci monde extérieur bi euh, loole nag li ngay wax ni ak loolu dafa mel ni wut loolu duñ ci delluwaat euh, moo ko témoigné ñoo ko déggandoo. yi la yore woon. bu dee am na yok, bi ngay wala. médecin yi mo wax dëgg maa ngi leen di remercier. Mhm. maa ngi leen di remercier bu baax a baax. Mhm. mais man euh, fu ma d'accordul. Mhm. télé yi dañoo teg télé télé am frigo am mais frigo bi frigo vide la ñu teg foofu. déet frigo vide amul dara ñun suñu lekkee suñu ndekkee 11h du ñu lekkat dara ba añ ñëw loolu la ñuy añ bi suñu añaa encore ba lekk dara lekk dara. ñun loolu lañu ñu frigo bi amul dara frigo bi parfois damay dégg ni ñu ne frigo bi ay lekk ñoo fa ay yooyu mais frigo bi dafa vide dafa vide amul dara parfois sax day ta dañ koy taal noonu bàyyi ko noonu bidon parce que bidon yu mag la ñuy jox bidon yu mag yooyu mënoo ko dugal si frigo bi. Mhm. waaw dañ koy taal noonu bàyyi ko noonu kiiwuñu ko. bu ngeen fa nekkee nan ngeen doon dégganteeg monde extérieur bi ay ay média dan mba xam daan ngeen déglu rajo télé internet nan ngeen doon dundee ak monde extérieur bi rawatina seeni mbokk man euh, souvent euh, sama portable lay connecté wu dugg si site euh, ministre bi mhm. may dégg ñuy wax am na tey chaque jour ñu joxe le nombre de cas ay yooyu mhm. man foofu si si internet bi lay dugg mhm. après par la suite benn kii maja la la la seetaan bon Madia xam naa ko depuis université bu ma bu ma ko bu ma ko gisee c'est une occasion pour euh, me libérer wu sama stress bi boobu laa ko exposé sama problème am na solo waaw sama boobu laa ko expliqué ma lu ñu nekk di dund si hôpital bi lu ma expliqué de A à Z parfois sax dañuy woo ñu ne leen information bu len ko guéné information yi yéen dañuy dégg information fi par là aussi mais information ñun dañuy wax lu ñun lool lañ am il ñu wax leen lu nekk suñu. maanaam bëgguñu ngeen wax réalité bi réalité lu ko nekk. Mhm. parce que ñoom dañu nekk di génne ñu ne lii moo xew lii moo xew te loolu amul foofu amul foofu loolu day metti mais nañu wax nit ñi lu xew si biir lu ñu nekk di dund si biir mhm. waaw. loolu la am pour wax euh, gars yi ñu bàyyi si xel voilà. récemment euh, Moussa Seydi professeur Moussa Seydi ñëwoon na Ziguinchor seet si na leen euh, naka ngeen ko accueillir woon si centre bi lan ngeen sekkoon wax ban waxtaan ngeen sekkoon ak moom. bon xam ñun bàyyi ñu sax ñu wax may ñu ñu wax. Ah bon pour expliquer le problème bàyyi ñu ñu wax moom ñoom dañoo ñëw ñu def présentation ñu ne kii mooy diw kii mooy diw kii lii moo kii mais mu si yoon tane ay yooyu ñu génn. loolu la hmm. ñu def. ministre bi moom dafa ñëw mais ñun dañoo dégg dama dégg buri kii bi eh, motar yi mais gisuñu ko moom gisuñu ko ministre bi dugul si biir frère yi di ne gis gis ngeen ministre bi ñu ne ñu mu ne non non gisuko, ko munti woo mu ne yo gisuko hmm. mais buñ ma transféré deuxième fois bi man ak am na ak benn gaan bu fa nekkoon waaw bu fekkee amna na loo xamante ne ko nga am yéene yokk ko si waxtaan bi bismillah kaddu bon man euh, comme lu ma ko waxee man euh, nañu jàpp euh, jàppale bi kese laay gën a appuye parce que nit moom doo jël doo jël lu mu am nga bàyyi ko su dee nekkul di liggéey nan lay def ba récupérer lu ngeen jël. Mhm. port man bu ma génnee portable kese lañ ma lañ ma bàyyi ma génne portable. ak yére sa portable sama portable. Mhm. ak toni toni bu ñu ma jox noonu te toni boobu amul mënu ma ko sol génn si si dëkk bi. mooy toni ñu fajkat yi. waaw mhm. mënu ma ko sol génn si dëkk bi. noonu la ñu bàyyee mooy toog fii di ab yére chaque fois loolu mënu moo si dund chaque fois awal ma yëre chaque fois awal ma yére loolu moom métti na trop métti na trop. rien n'est trop tard mën nga euh, ñëwaat ni nga ko bëggee si biir euh, réinsertion si société société bi ni nga ko bëggee incha allah yàlla na la ko defal na la yàlla na la yàlla may wérgu yaram bu baax a baax ñi nga xamante ni tamit ñu ngi si centre ba yàlla na yàlla fagg seen bopp ko defee ñu retrouver seen famille ni nga ko bëggee amis internautes euh, ñi nga xamante ni yéen a ngi doon suivre ci groupe média du sud l'officiel ñu ngi leen di jaajëfal baax a baax c'était Ansoumana Da Silva sekkoon waxtaan ak ki nga xamante ni euh, ca centre traitement bu hôpital régional bu Ziguinchor la bàyyeekoon euh, alhamdulilah tane na ci wopp gi di coronavirus euh, ñu ngi leen ci jaajëfal ci ni ngeen ñu doon déglu di jaajëfal te Simon Cissé mi nga xamante ni moo nekkoon ci image ya LDR Gomis ci logistique bi cant ak gërëm ñeen la leen ñu ngi leen di dig yeneen jotaay ci GMS FM